mu ñëwee ci dañ dëpp gi muy diggante Modou Lo ak Ama Balde ndax nekk na làmb joo xamante ni nii man dama naan moo dàq ci làmb yi Ama Balde dafa yàgg a topp Modou Lo tamit mosu koo bañ waaye yàgg na koo bàyyi xel nee na ko saa woo yegsee rek dinañ bëre moom moo toog ba ne nañ ko seeti bu pare pare naa nga gis làmb jooju amaa Balde teewlu ci gudd yoo xamante ni nii macha allah Modou Lo tamit amu ci mu jógee yoo titre roi des arènes bi te bi mu mujjee géew Eumeu Sène la andi Ama Balde andi Eumeu ñu daan ko mu jëflante ak moom looy wax Ama Balde waaw dama leen koy boole ñoom ñëpp Ama bale euh, bi mu Lo génnee sorti boobu ci ragloos bi war a ñëw def image bi dama gisaat yeneen vidéo yoo xam si Ama Baldé ñu koy préparé ñu ngi koy préparé préparation bu jaar yoon bu normal. waaw image yi ma gis. excès gu nag xaw ma nu muy demee si changement après waaye làmb jooju seen jàkkaarloo jaay na làmb ji làmb jeex na fa. seen premier jàkkaarloo deuxième jàkkaarloo troisième jàkkaarloo bu amee quatrième dañ nit ñu bëri nañ xam kuy daan. parce que seen làmb ñoom dina neex a liggéeyanti parce que li tax mooy Ama Baldé borom jom la Modou moom du di dem. parce que ànd naa xale liggéey indi état bu doy waar wax li muy wax kee ma gis muy liggéey liggéey bu intense daw ci dini di sóod liggéey maanaam force rapidité moom mi ngi liggéey baax parce que làmb boobu loolu laaj Modou kuy bëre moom sax coffre day baax da ngay dëgër bul ngande bul soxla ngande jarul ngande. loolu muy liggéey bu intense. boo xam day ànd ak rapte bu doy sëkk foo demee dem sa yoon waaye boo xawee yéex rek moo da lay humilier la moo tax làmb jooju daal ku ci wax moment bi mën nga juum parce que li ma gis nii ñuy préparé. avantage su ma déggee avantage Ama Baldé nga mais avantage Modou loo ci ko Ama Baldé. Modou Lo lépp avantage si moom parce que li tax mooy du du sànjaafoo te fee xelam mi ngi nekk rek boo ko perturbé wul doo ko daan. kon am na avantage bu ne Modou boo ko daanee da nga ko pété. yaa ngi may Ama Baldé xel. dañuy waxtaan parce que wax li mooy seen ndaanaan moo tax parce que ko ay mbër yu ndaw ko defaree jamono ñun ñëpp kon ñoo ko bokk waaye li ñuy wax nii dañuy wax rek pour suñu point de vue mun na bañ a demee noonu waaye ñun suñu gis rek lañuy wax parce ay mbër lañ rek mbër bi koy jël teg ko nii tuuti xaw a doon amateur pour waxtaan si laamin parce pour ñuy dégg ku ne xam sa mbër am na lii ci fort Modou kenn Modou bu posé daan du yomb ak ko munti doon Ama Baldé lu ko bëtam may fitam may na ko kooku kenn waxatu ko am na jom même bu même bu munta bëre bu amee benn mbëkk gëm na ko Modou nag du jeex.